voilà machine bi ngeen di gis nii moom la ñuy woowee machine vibromasseur waaw machine bi boo ci yéegee dafay def ay vibration yoo nga xamante ne day agir au niveau du corps humain donc vibration yoonoon yi ni muy def maa ngi nii di ko yokk da nga gis day dindi lépp luy graisse lépp luy cholestérol lépp luy matière grasse yu nekk ci biir yaramu doomu aadama donc bu fekkente ne nit ki dafa am yaram ou nit ki dafa am lu ñuy woowee ay fàmb wala ay cuisse yu ëpp wala ay biir bu débordé et cetera da ngay gis ni machine bi vibration yi muy def dafay mel ni luy arraché lépp luy gën su nekk ci yaram donc da ngay gis doo bi vibration yi ni muy agiré au niveau du doo da gis ni muy agiré au niveau des cuisses da ngay gis ni muy agiré tamit au niveau du ventre da ngay dem sax parce que damay bañ a jël kanamu kii anonymat laa ko dem da gis sax day dem ba day agir ci say lex donc du bàyyi fenn fépp fu mu fekk graisse rek daf koy dindi si sa yaram donc instant bi mu ngi niveau 54 donc am nga possibilité yokk ko maa ngi koy yokk instant bi yaa ngi koy yóbbu ba ci maximum bi ba 99 donc dangay gis ni plus muy dem plus muy agir au niveau des pieds au niveau des cuisses au niveau des fesses au niveau du ventre et cetera donc li moom mooy machine bi c'est à avoir absolument pour ñi nga xam te ne dañoo bëgg perte poids le plus rapidement possible mm, pour ñi nga xam te ne tamit dañoo bëgg juste rek def maintien de forme bu ñu yeewoo am ci séance su 10 minutes bala ñoo tëdd am ci séance su 10 minutes c'est que l'équivalent de une heure de temps de course non-stop et l'équivalent de 30 minutes de natation non-stop Donc voici la machine Messer qui est disponible au niveau de notre entreprise à un prix imbattable, 261 000 francs seulement.